DKTV. yoo ca kër soxna waaloon sëñ Saal nekk ca Mbaleer ca togg ya nee na kon nag bëgg gi mu bëgg sëñ Bamba loolu bëri na ko nee na a fii ñaan maam jaara ndax nee na Serigne Bamba moom du jeex ba àjjana nee na ajarta bi yaan di wax ni nee na yal nañu yàlla dimbali ba nii ñu tàmbalee bismillahi rahmaani rahim yal nañu àggalee alhamdulilahi rabbil alamin man damaa bëgg lu sincère bëgg lu xam man lii sama métier la. ay ki nga sama mag kii. moom hmm. xam nga lan moo tax. géer ñëpp bu ñu paree ñooy ànd dem ñibbi ca seeni kër. ndeysaan. géwél yëpp bu ñu àndee ñoo bu ñu paree ñoo war a ànd ñibbi. ndeysaan. daanaka kaña nga ca nar a nga ca waar seen maam kaña. waaw waaw. comme ci wax waa ci bu baax. xëy naa sa sët ci fiken bii ñuy ñëw la ñuy dugg fukki fan ak juróom tabaarakalla laaw la ca. macha allah lépp lu fiy neex mbaa mu fiy rafet rek fexe nga ba def ñaaxariñ la. ci moor. dëgg la ma dee wax bu ma tuddee munaa loo am jox ko bu ma tuddee maître lii ba loo am jox ku ma tudd ci lu balaa kooku ne ma teral yaa may teral dama teraanga bi neex na loolu bi moo ma ko dàqal. kii nga nee na defaat géwél nee na julli ci yonent bu tedd

faatu géwél ni moo war ma ne ko naa mu ne ma ñoo dawaat tuuti parce que ñuy dem bi ñuy bëgg a nuyoonte rek di waxante yu baax kon ma naa ñëw akaat bëgg nga problème ci réew mi waaye réew mii ñu ne kon fi kenn ñëw wallaay miis waxal ci ma naa firndewaat rek nee na fu ma ma fa toog

dama laa wax ne la moom la benn nawleem gënu dama laa wax ni ku iñaan du wax ku iññeññi du ko wax ku soxor du wax Fatou yow yaa baax ba àddina yëpp na yaa baax tabarkàlla macha allah dama laa wax ne la ko dañuy géndu Ndiaye na am jamaam xujja Ndiaye Talla Bakar kon bu doon sama doom dangaa ñëw tabarkàlla macha allah ñu dénk la bàyyi guddi guddi wëlbati ko jël mi noonu def ñu ay ndey waaye faatu nga baax faatu nga gore faatu nga ñëw faatu boo tëggee ba pare sa ay naw li ma càmmeñ paayam bëggoon ma loolu alaaji maali si ñu dul sama doom ju baax Moustapha góoru Binta si sama waay Binta mu soxna baax kii laa maali si maa ko maali si maa ko maali si Sida moom mu toog ci sa wet bàjj na wet. waaw waaw sama ya lu mu jar maa lekk loolu. dëgg la di ànd ak transfert yëpp di andi si kan. sa bàjjal bu riche ba. yaa nee na lépp lu mu la jox rek xeex na. lépp lu mu indi ci yow rek. ak kay yéene la. Hmm. yéen a yàlla na dund balaa nga yow. loo su baax a noppal yaay yaay su baax a noppal doom yaayu ñaa. bëgg ñaa xarañ bëgg Ablaye Diagne. dëgg la kati li may wax yaa ko moom. fu ma la woowee sama waa ji teral mu ñaa xarañ. suñu yaay moom lii kati dama ne. doomu madame Diouf. jaag yoor ndeysaan di liggéey lañu seen baay waaye ma yi seen jàmmeñ borom fukki jabar ak benn goro ndeysaan maa damel Fatma Dieye dëgg la bu neexee ñibbi gaan yoor bu la neexee ci ñibbi diggante xabaar làmbaay fili bay sa baay Mati Gueye yaayam Mati Gueye Matar Gueye baayam ndeysaan oh mbokkum ndeyam fu mu ko soom yaay sama dëgg la maama maa de valeur fili bay sa baay Mati Gueye yaayam Mati ñëwoon waaye Ami Faalay sa yaay Marème Faalay sa yaay. ndeysaan Mari Ndiaye seen yaay. ndeysaan Mari Ndiaye Fatma Ndiaye. Birame Ndiaye Kumba Buur Bala Samba Buuru Ndiaye jëleen may léegi. léegi tukkuli tukkuli njiglaan njiglaan sare sare Ndiaye Ndiaye. ndeysaan ndeysaan yow ni nga doon fekkoo leen fii. dëgg la. sa doom bi sagal na waaye sagal nga sa doom ji mbokk ndeyu Marisa. bu daan nga sa bu daan nga sa fii. sama doom. insisté loolu sama doom. yal na nga gudd fan. fa Fatou ji ma siree sa jiyee. bu dem nga sa buddi. Fatou Penda maa ngi ay su taale ngoon a jiyee. ay la taa kootu Samba Fatma ma kura jaar door. ndeysaan juróomi lingeer yaa doonu lingeer loolu. moo tax yi lingeer ngay def. sa doomi ndey yaa ngi toog. mbokk yaay say na karaaraa ngay toog. yaay karaaraa. naka ni bërki biig la fi ñëw. ba mu ñëwee oro la génne. teg pari récolte door a gay. bu xew bi ba ngeen fàtte dimanche Clara woote. nee na bu xew ba ngeen fàtte ne dimanche Clara dafa woote. lancement ba. mbokkum ndeyam Oumy Ndiaye. sama rakk ji ma yóbbu jëlal ma première classe. ndeysaan ñu jaar Dubaay. mu jël hôtel ba ñoom fa ñetti fan. dëgg la ñu jàll Màkka. ma ci biir Kaaba nga VIP. ndeysaan ànd koog man. montre ba Alaaji Badara Ndiaye sa baay. Cheikh Ndiaye sa baay. Mbacke Ndiaye sa baay. Maaloo Samba Sene ba góor. waaye bàyyi la mu tudd. bàyyi ma fi ku ñëw defal sama

lii. j'ai constamment dit que elle est provocatrice là où elle passe elle laisse des traces yal na yàlla jàmmal. léegi nag Mor. ah, ah mami dafa wax ni ak ay mbokkam. ndeysaan. mami dafa wax ni ak ay kàntaam. yu rëy yam naan wax. mami dafa wax ni ak ay am di jàmmam. mami dafa wax. dinaa bi tey wax. xeex. ñeenti million ci madame si. million ci xeex ko yóbbu. juróomi million ci madame si. ku million bi dama koy téye xam nga nu koy def yaa ma joxoon ñeent fukki junni géwél ñeent fukki junni joxalante xanaa da juróom ñett fukk dem na nga may tabarkàlla la min ci am ñeent fukk muy six cent nga may anta muy huit cent nga jox yéen ñaa tabarkàlla macha allah muy un million bu manqué cent. nga may un million nga may sama taal leena un million un million bi dindi ca jokkalante dindi ca mayu bi wal tabarkàlla ba nga ma joxoon téeméeri junni ak ñaar fukk ba ngeen seet million ba daal dellu si na yaakaar muy million. waaye moor moor ah? moor ñeenti junni. ñeenti junni. juróom-ñetti junni. fukki junni ak ñaar. fukk ak juróom-benn. fukk ak juróom-benn. ñaar fukki junni. ñaar fukki junni. ñaar fukk ak ñeent. ñaar fukk ak ñeent. ñaar fukk ak juróom-ñett. fanweer ak ñaar. fanweer ak ñaar. fanweer ak juróom-benn. fanweer ak juróom-benn. ñeent fukki junni yi. islaam joojo sama intellectuel de haut niveau bi ñàkkuloo jom néewuloo gàcce sa néegu yaay dundoon ku la seen bëtë ginnaaw moo dee xam ne sira jiitu nga leen xam ni karawaat boo ne atlaan daa daji boole joojo nee na ñeent fukki junni moor moo la ko may atlaan joojo wuy ma sekk boo ne atlaan daa daji boole joojo atlaan joojo dama ni ab seet waaw moor borom ñeent fukki junni yi waaw moo gaaw ci beewu ak. moom la ko nee na du ko yóbbu kuy xeeb doo yóbbu dara defal ñeent fukki junni. mami Niass. walaay. walaay may bàjjël. lii moo ko moom seen 400 mille. 400 loolu 400 la. ah dafa rocceeku woon dafa rocceeku woon. nee na lii moo ko moom dafa rocceeku woon. waaw. 400 mille. nee na ay joxante ki muy dóor bu dara. nee na lii moo ñu ko may lu nasoon na indi ko. yow yaa ngi dégg dama ñibbi dama génn fii. ba suba ci woon ba suba ci woon ba ginnaaw suba ba ginnaaw suba. da nga laaj li ma yor. géwél yi fi toog. DKTV mooy Dakar TV people. man ñaaxarañ loo aka Faramaren music maa ngi seetaan DKTV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DKTV. Maabo. Maabo jaajëf waay DKTV. kon man alaaj Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DKTV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DKTV. oui euh, man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DKTV. man Viviane maa ngi seetaan. DKTV. yes sir yes sir Wally Ballago Seck mi ngi connecté wu ci DKTV people ah. waaw man El Hadj Abou Bilal Koutia damay seetaan DKTV. pour yu am solo. ngaa ko blende maa ngi seetaan DKTV. di dundu gis DKTV. Malomzo Dal maa ngi seetaan DKTV. pré lañ ma liggéey li mu ngi DKTV iway dina ko seetaan waayi voilà. yal na ngeen nekk kanam li neexul. DKTV. connecté wu leen